salaamu qabla al kalaam dañuy sant yàlla rek di sant sëriñ Fadlu Silla mi nga xam ne li yàlla ko jaare ci moom te muy lu baax lool lu baax lool sax te duñu wax lu baax dañuy wax lu baax loo xam ne lu baax mënta weesu lii toog ci bërëb ay jullit ay taalibe jàng alquran jàng xasaayid yi fàttali ko jëmm yu baax yi fi nekkoon loolu lu baax mënta weesu loolu alquran bi ñu ko jàngeen rek moom na fi yem te mu doy sëkk ndax moom daal li ma xam te ko mooy naa ne alquran fu ko mën a baax na fu ko mën a jànge itam baax na waaye xam naa ni jimmi téer bi moom murit jàng ko moo ko gënal walla xam naa ko ci lu wér ci lu ma teewus ndax nu ñuy nu ñuy moomee dara rek Sëriñ na ko alxuraan suñu borom may na ko jaay na ko ko sarax na ko ko jox na ko addiye dal loolu na ko moom loolu na ko kon foofu fële sama yem te itam ci taarixul islam bi ba fii ni toog di wax mooy jëmm maanaam tudde sa doom doom Sëriñ Tuubaa ko jëkk def ci ko suuf te déggaatuma ko te it alxuraan képp taxoon Sëriñ Tuubaa def ko loolu itam fayas naa yem bu mu demee gànnaar Cheikh Sidiya doomam jànqam bu jigéen bind kaamil mu koy wan sëriñ bi waaye ci biir wan gi mi ngi wan sëriñ bi ne ko lii nag ñun ñu weex ñu noo ko mën a am doom ba am ñaari fukki at ak ñeent bind kaamil sëriñ bi ci diggam alxaan jox ko lu bëri ci xeetu àllalu àdduna waaye bi mu ñëwee nag moom sëriñ bi ba ñëw njaareem soxna Maymunatul Kubra bind kaamil boole toggareer bu yéeme noonu di la ko suñu jum daan waxee ne ci téere ba indi ko sëriñ sëkk si si dee ñëw fa sëriñ bi wan ko ni ko kawe bi de sama doom bu jigéen bii moo ko bind Cheikh Sidi xool kawe bi ni ko bii léegi wax dëgg yàlla moo daq ba sama doom bind ca gànnaar sëriñ bi ne ko bii di ma doom mooy tudd sa doom doom loolu sëriñ bi ko jëkk def dem ak alxuraan loolu foofu rek doy na ki des mooy xasaay yi sëriñ bi ñu yéen sunu sëriñ li ngeen ci xam xamuñu ko eh, waaye li ñu ci xam li mu néew néew sëñ Muntaxa daf may wax saa su ne di ma soññe keroog wax na ma ni sëñ Bichir moo ko wax ne ko sëriñ bi woon ma ci njaareen bis ni ma Mouhamadul Bachir na ngeen ormal sama xasaay yi na ngeen ormal sama xasaay yi te na ngeen fonk lool te na leen wóor ni sama xasaay yi wóotiloo ma leen ak dëgg sama cër yi dana ko jox kon loolu fa la lépp mën a yem ah, mbokk yi noo ngi ñaan nag jataay bii ñun ay dong lan yéenay sëriñ si comme suñu mbàkki moom eh, Cheikh Abdou Karim mu tëgg Cheikh dañu ko siwal mbakki yi na mbakki yi na hum saadaatuna abadan waaw koo xam ne doo ñoom da yow waaye mbàkki mbàkki moom ñuy priorité ba faw yéen jiitu ba faw loolu yàlla dogal moom ba àdduna tukki yéen suñu sëriñ waaw loolu yàlla dogal daal kon moo ko may jéem <laughs> loolu yàlla dogal te nangu nañu ko waaw ah. eh, sëriñ bi daana wax ne ñii sant nit nit laa ci ñoom loo xam ni ku ko jëfee ci mbokk ma naqari ku def ci ñoom mu naqari ma lool loo xam ne ko ci mbokk mu neex ko neex ma kon Mbàkke ñoo jiitu ba faaw ñu topp leen allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala sahbihi kenn du ko dégg ba wa ala alihi rek ay jiitu sahbi doogu ñëw waaw yéen nag yéenay aali sëriñ bi nooy sax moo tax yéenay jiitu ba yéenay publicité yéenay jiitu ba faw rek man man de nangu ndee na loolu nangu noonu ko nangu noonu ko ba faw yàlla ndax loolu yàlla dogal kon nag nooy dong yi waaye noo di ñaanal ñun tëm ndax donc de ñaanal sëriñam yéen suñu sëriñ waaye noo ngi ñaan ci baaxu sëriñ bi ak mbooti xasidaam yi yàlla dogal kenn ku ci yéen lim yéene ndax yéen a a xam seen bopp kenn ku ne lu mu yéene liggéey lislaam ak Sëriñ Tuubaa mii ak fam ne yàlla dafa ko tuloo ko fay jortam yàlla bi nga xam ne dara téew ko leen defal gudd fan lool léeg-léeg mu daal yàlla nga dund junni yàgg loolu at yi seen maam bi tedd ligi daal noo leen koy ñaanal mi maam ndax te saxal na amoon na téeméeri at ak fanweer juróom-ñett loolu daal noo ngi leen koy ñaanal ak topp ndax gudd fan moom yéen rek ci war topp gis si bis ñuy ñaan ca sindi di tawi la na omro na gis nga lam ci teg sax dina gudd fa moom wéer rek gis nga war a tegi su ko defee nag xewi yi dul jeex te ko dara doxal ñu koy noo ngi fas nag ñun ci abiyaat yi muy jàng ndax sëñ Muntaxa moo ni woon booy jàng tey di ma ci fasal man mii sa wasila hmm. am naa baax bay ko tax waaye ko tax ah, ak yow itam ak ñun ñëpp ndax euh, muy ma yàgg euh, euh, njàng mi sëriñ bi gërëm na ko te man gërëm naa ko hmm. te yàgg nga ci mu ni ma kuy liggéey ci mairie fanweeri at te mënoo faa lijjanti kayitu bi moo nga démissionné loolu waxin la xëy noonu daal ko waxee ni liggéey ci mairie fanweeri at te mënoo sax kayitu juddu bu moo nga démissionné kon nag ci ndigam loolu noo ngi fas ci jataay bii bii ñu toog fii de bis bii diwoon ku fi toogul dafay fekk nga ne ci yeneen i itte ndax itte yi bari na waaye daal li ma bëgg wax mooy kenn bañ a faatu rek loolu loolu naa ko ci fas bu baax a baax a baax naa ngi ci fas itam yéen ñii di suñuy sëriñ di suñuy kilifa te wax naa ko léegi loolu nangu noonu ko ba faw ba faw ndax loolu suñ moom taxamee di ko moom ak di ko déglu mbàkk mbàkk bu am bu ay bu sax da ko teg foo xam ne doo fa teg kenn ndax moom foofu la nekk dafay wax ne ñii suma sang lañu moom moom moom noonu lay dundee kon su na Mbàkke moom bu rëy génn ceeb ñëpp la ormal ndax itam sëñ bi sëriñ Tuubaa nit mënoo ko fonk mënoo ko bëgg te te te fonkoo njabootam fonkoo bëggoo ak njabootam loolu mënta nekk sëriñ Tuubaa ku bëgg bëgg mbokkam yii te yéen yi mbokkam loolu yàlla dogal kon fu noonu leen di bàyyi xel daal ci sunu lépp te bu leen na fàttee àddina ak àllaxira Daaru Salaam jii nag man maa laajoon sëriñ Saaliwu radiyallahu anhu wa barakaatu yi ko Mbàkke murit yi dañuy daanu rek di wax maa ngi digg wax joo xam ne yàgg na xam xama xama sëriñ bi ko wax xama daanu ko see koy wax rek mbay saan moom ma wax jooju na mu demee ma ne ko dañoo wax ne daaru salaam day malaaka mi ko tooñ fa dugg tax solo fu gën a daal di mu ne ma loolu sëriñ bee ko wax wallahi alazim mu ne ma sëriñ bee ko wax kon nag loolu loolu rek doy na daaru salaam moom eh, kon nag ah, ñoo ngi ci daaru salaam rek <laughs> daaru bi neen nag daaru xudus ak boole ci donc daaru ñoo ngi ci daaru yëpp daal waaw bu leen na fàtte daal ci gàttal loolu rek laa ci doon wax ci gàttal eh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu li qutama faaq bi jaylaani alayhi ridwanu alladi alaani ilaya qutta ma bihi abul hasan فاق بخدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التيجان فاق وكنت لي بالمرجان لي قدت ما زح زح عني الدنس صرت خديم المصطفى مثل أنس برأني القدوس من كل دنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نفعتني وقدتني إحسانا ورزت في مدح النبي حسانا لحاز عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى عسرة وخير سرور سبقت غيري إلى الجنان مع النبي القرش العدنان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يقتدر أجابنا الرحمن قبل الخلق سبعين ألف سنة بالحق يقول لي كن فيكون ما أريد وليس يمحوني شيطان المريد درجتي عند الإله ترتفع ترتفع وإنني بلا حساب أنتفع درجتي كوني خديم المنتقى وبي يباهي حزبه والتقى رفعني الإيمان والإسلام وقادني الإحسان لا ألام رفعني إخدام خير الرسل رفعت به وافقت كل مرسل رفعني الرافع فوق الكرماء بلا افتخار بمنى لن ترما سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق إلي قاد الله ما لم يظهر لكيس مطالع ممهل بركتي واسعة وباقية بقاء ملك الهبات الصافية جعلت فطري فوق كل صوم جعلت النوم كقيام القوم لن يمتلي قلوب قوم آمنوا يا من ألمت لي من لم يؤمنوا إلي قاد الله علم الأولياء كالأنبياء ورسله في نيليا إلي قاد الله سرا دمرا من جهلوا حالي وخاب الأمراء لاقي القلوب والأبدان تحبني البيضان والسودان أكرمني بالصلوات الخمس ورمضان حاليا أغرمت أكرمني بالصلوات الخمس ورمضان حاليا أغرمت أكرمني بسره المخفي من قاد خطي إلى الكرسي قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي إذا كتبته اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته اهتز عرش ربنا وسبحت جد العزيز في البناء sëñ bi abyaat yooyu mu bokk maa eh, ngi maa ngi ci tax xasida goo xam ne sëriñ Mouhamadou Bousso Mbacké radiallahu anhu mu ma ko daan jàngaloo ci kal rajab gu ne ni ma doy na sëkk ci ñaan ndax ñett yi ci jamono la ki sëñ sol doon wax ak yàlla famille mustakin fàqran maanaam ñii dañoo ñàkk am na ñoo xam ne dañoo amul dara ñoom ñoo ñàkk ñii ay seen yaram dafa am ay feebar ay jàngoro te faj nañu ba sonn te ñoo wér ñii di ay gor ay bor tegu seen kaw te amuñu lu ñu fayee ñett yooyu yëpp nag sëñ fal ni yàlla na fi loolu lépp jóge te nga fi xéewal kon fukk bi it ñaar yooyu la loolu dañ koy isaare sëñ Fallou Gass rek isaare leen ko yéen ñi itam eh, te ñaan nag daanaka ko waxoon ci xat-xati jamono ak tattari jamono na mu ko ñaari woon rek yàlla gën a dolli loolu ci xéewal ci suñu jamono ji qaala alcheikhu muhammadu sadiqu lmakkiyu radiyallahu anhu wa nafaana bi barakatihi amin li ghayrika la nashkuru ilaha alwara amra وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا ولسنا نخاف الضر ممن سواك لا كذلك لا نرجو سوى يسركم يسرا وأهل الدنا أخلت عليهم صروفها وما منهم إلا أخو كبد حرا وفيما مضى ضاق الزمان عليهم وفيما سياتي فليكن ذا ولا ذفرا فمن مشتك فقرا ومن مشتك بلا ومن مشتك دينا ولا بهم أحرى فكن دافعا شكوى الجميع وعمهم بلطف وكن ربا رؤوفا بنا برا ويا عالما منا السرائر فاسترا نائبنا وانشر لنا ربنا ذكرا وقوف ذليل قد وقفنا ببابكم وإنا نرجو منكم الفتح والنصر لقد ضاق حال الوقت واشتد أمره ففرج إلهي كربنا وادفع الضرى وبارك لأهل الشيخ في الدين والدنا وانكسارا منهم سرمدا جبرا عليه رضا الرحمن في كل للساعة بمخدومه السامي أجل للورى قدرا عليه صلاة الله ثم سلامه بآل وأصحاب له أكمل الأمراء